avant may ñëw ci Aliou Sow ak Thioro tey eh, ñu ngi ah, wax euh, ministère yi mais également dafa am yoo xamante ne Mame Khady soulevé na ko léegi moo di euh, le nombre de femmes quatre sur vingt cinq ministres waaw non da nga ciy yokkaale secrétaire yi kay trente trente ministres quatre rek trente membres du gouvernement voilà trente membres du gouvernement ñu jël quatre rek jox jigéen ñi bon bon gis-gis la te jigéen ñi aussi bu leen euh, seen gis-gis ak góor yi nga xamante ne am nañ ci beneen gis-gis mun nañu ko wax mais man ci li ma jàpp sama xalaat laay wax euh, mun nañu euh, accès commentaire bi sur des choses beaucoup plus substantielles euh, ci rôle lu ministre yi mhm. ci est-ce que am nañu compétence est-ce que am nañu intégrité parce que tey Sénégal li fi nekk ci ay jigéen yëpp moo xam ay personnes âgées nañ moo xam jigéen yoo xam ne ay femmes adultes nañ moo xam ne ay jeunes fii nañ mhm. ñoom ñëpp ku ci nekk dafa am lu lay impacté ci loo xam ne c'est transversal dafa laal tous les ministères. waaw par exemple jigéen bi am quinze ans di jàng bu ñu falee un bon ministre de l'éducation buy liggéey ba éducation bi avancé da ciy yëg boppam comme ni góor bi amee 15 ans di yëg boppam jigéen biy déplacé wu di transformé ay fruits ak ay légumes dëkk Casamance wala mu nekk dans la zone des Niayes bu secteur agricole doxee da ciy gis boppam comme góor bu ci yëngatu li muy gisee boppam. yéen jigéen ñi yëngatu ci communication. Mhm. ministre de la communication et des télécommunications ci li su liggéeyee ba secteur avancé da ngeen ciy gis seen bopp. donc bu ngeen xoolee sax dans l'attelage gouvernemental ministère de la femme amatul. Mhm. li am mooy ministère de la famille et des solidarités. su ngeen demee France da ngeen di gis ne ministère de la famille dañu ko fonk. Mhm. tey am na benn code boo xamante ne c'est c'est l'un des codes les plus les fond les code 1972 ba léegi pendant 52 ans kenn laalu ko pourtant il y a deux tendances il y une tendance conservatrice bu jàpp ne code de la famille dañu ko war a euh, gën a méngaleeg suñu cosaan ak suñuy diine am tendance boo xam ne moo gën a bu jàpp ne code de la famille dañ ko war a moderniser ci lu jëm ci àq ak yelleefu jigéen yeeg yeneen ak yeneen le ministère de la famille rôle am ci ban politique nañuy def pour famille parce que c'est la cellule de base pour la société da koy poursuivre donc ce qu'il faut comprendre nekkatuñ dans ce cantonnement de femmes yee ngi nii jeunes yee ngi nee nombre de femmes ci ministres yi nombre de jeunes ci ministres je donne un exemple yéen jigéenu Sénégal est-ce que satisfaire am ngeen satisfaction ci nguur yi fi jaar ci seen taxawaay ci jigéen ñi je pense que l'écrasante majorité des femmes vont me parce que bokk nañ ci processus bu indi alternance ci élection bi passé et pourtant nombre de femmes weesu kon li substantiel c'est nombre de femmes on aurait souhaité mu am plus de femmes d'accord nañ ci mais li substantiel mooy secteur bu nekk te jigéen di fa yëngatu góor di fa yëngatu nañu fexe ba mu développé bu ko defee sénégalais yëpp ci seen bopp. loolu laa bëggoon aborder ci question boobu. réductrice. mais euh, euh, awa amuñu compétence awa une première liggéey ministère des aussi. waaw dinañ ci ñëw ñëw gën ko yaatal ma ñëw ci euh, Thioro Mahou Mandela. Mm. ci li nga xamante ne moo di gouvernement bi niñ ko restreindre également ndax répondre na déjà attente ñi nga xamante ne ñoo di askanu Sénégal ci ñi nga xamante ne gis nañ leen ñu teg leen pour développer ce Sénégal là. loolu rek déjà rupture la awa euh, ni nga xam ne noonu la ñu wàññee gouvernement bi ba mu toll ci euh, ñaar fukk ak juróom mhm. ñuy wax euh, yeneen ci ay secrétaire d'État te yaakaar naa ni ñoom loolu la ñu defe woon diggee seen diggante ak askanu Sénégal amaana bu ñu defoon leneen ñu ne du yi ngeen waxoon te lu mën a nekk la parce que ci gouvernement yi jàll dañ ñoo mës a tàmmal que Euh, séddoog pàccoo il faut mu am ñu euh, xar-xaral ministère yi ku ci nekk ñu dugal la euh, ci post boo xam ne ni yaa ma neex la ak mm. bumbaay ak leneen loo mën a indi ci wàllu politique ak yeneen mais soo gisee ni ñu ko tëggee da ngay xam ne kat wala nga xalaat ne xëy na rupture bi ñuy wax ñoom loolu la ñu respecté te yaakaar naa bu ñu jëlee ci yenn dëkk yoo xam ne ni sax dañu naan xëy na du du du ñu royukaay ci ñun ci yenn yi mais kam tam mën nañoo xool ci ñoom ci yokkute ci wàllum li seen gouvernement di liggéey. Mhm. Euh, France tey jii 60 millions d' ñu am tey jii 35 ministres ana euh, États-Unis 50 euh, états ñu am tey ji 7 ministres. loolu yaakaar naa ne bu ko Sénégal tey jéeme ci ni ñuy doxalee ci côté rupture. lu ñu mën a xaar la beneen bi mooy. ñaar ci ay nomination daf ma euh, gën a dalal sama xel ci wàllu rupture bi ñuy wax mu di euh, euh, Jean Baptiste Tine ak ki nga xam ne moom moo di Ousmane Diagne mm. parce que ku ci nekk rek wane na courage ci li nga xam ne moom mooy domaine bi mu bi mu jóge ak lam ca doon def boo jëlee le cas de Ousmane Diagne mm. courage bi mu wane ci li nga xam ne moom mooy dossier Mame Mbaye Niang ak ki nga xam ne moom mooy usman Sonko mm. daf lay wan ni kooku ki toog ak Macky Sall mi nga xam ne dafa yoroon loxoom bu diis di dóor te faalewu ko ci jamono jooju faalewul ay nomination faalewul alal ju tegu faalewul leneen ak leneen tey jii du ay Ousmane Sonko lay sëggal wala muy sëggal Jomaay Fay wala keneen euh, xel mën naa dal côté boobu ñu ñëw ci li nga xam ne ni moom mooy nomination wu euh, euh, ministre des forces armées caserne yaa ngi yëngu ñu ngi yëngu bu baax a baax ci information bi ñu ko tabee ñu ngi yëngu bu baax a baax ñi nga xam ne bii mi ngi yëngu kontaan mi ngi mi ngi yëngu ak contentement parce que lii lañ doon xaar mm-hmm. les hommes qu'il faut à la place euh, aux parce que loolu mooy rupture bi nga xam ne moom lañ doon xaar euh, ñu ñëw léegi ci maaxat yi mi ngi ko doon wax jigéen ñi bokk na ñoom bokkuñu parité jigéen laa mais dama ne euh, dañu jóge fu metti ñëw ci loo xam ne nii dañu war a faire face ak au sénégalais seen demande euh, nekk demande yoo xam ne xaar ma ñëw awa demande bi nekkoon demande boo xam ne lu lu lu lu yaatu la lu rëy la. xaar bu rëy la waaw xaar bu rëy. Mhm. nee naa la euh, info ci information euh, pale fan yi ci li ci doon jaabante ci ay CV bari na. ci li ci doon jaabante ci ay CV bari na. Mhm. est-ce que du compétence bi ñu doon wax ak xëy na jaar jaar ci loxo bu set ak yenn moom moo indi tey jii. Euh, xëy na ñu nommé ci quatre femmes man foofu laay waxee beneen bi mooy euh, bu ñu nee euh, vingt neuf ministre des sports jaar na fi ci ay nguur yu ute ñu ne kat ministre des ñu ngi koy njëkk a nommé ci jigéen ci ci gouvernement bu yees bi dama daan foofu xel mën naa dal parce que xam nañu ne jigéen am na yenn compétence yi te am na loo xam ne nii moom lañ leen di xaar te bul fàttee cumul bi ñaata ministère lañ ko tegaleel ak ministère bu ci nekk ay problème am te Khady Diène Gaye euh, Khady Gaye Diène autant pour moi ñu fàttali ne moom ci euh, domaine sport boobu ci la yëngatu inspectrice la woon inspectrice la woon Dakar gi la nekkoon après lañ ko muté yóbbu ko Kaolack euh, mu nekk fa ci domaine am déjà da ko da ko da ko da yóbbu ko Kaolack waxal loolu mm-hmm. muy gaynde ay Yacine Fall la ñuy xamat ñii mais gaynde la te ci kanam dina ñu xam inshallah Ijaasa la ko sanctionné woon yóbbu ko yóbbu ko Kaolack mu koy def lu lu am solo mm. te bitee maa ngi lay wax lool ci wàllu culture boo duggee euh, euh, euh, ci li nga xam ne moom mooy ci domaine am ci wàllu culture di nga xam lan la def ak lan ak lan ci wàllu culture donc xel mën na dal ci euh, euh, néggandiku rek ci xaarandi parce que ay weer yàggat moom xam naa ne moom macha allah. waaw même ci culture bi laa lay wax gëstu bi ci culture bee des mais sport bi moom macha allah. d'accord damay bi ni macha allah yee mu yéeg culture bi culture bi dem. yàlla baax na nañu am njort bu rafet. waaw njort bu rafet ñu uh-huh. doog a commencé Aliou. Mm-hmm. ñu ñëw ci yow par rapport ak euh, la composition du nouveau gouvernement ndax tey répondre na à tes attentes. Euh, waaw mun nañ ci rafet njoort mhm. euh, ci euh, ñetti cas wala ñeent yoo xam ne dama ko dama ko gis ma xalaat ni xëy na mbir yi mën na am mais balaa balaa maa yegg foofu dama bëggoon rappeler que un ministre délégué pour ñu xam et un secrétaire d'État c'est exactement la même chose un ministre auprès et un secrétaire d'État ngañ je pense que ni loolu. weddi ko dina difficile c'est exactement la même chose parce que un secrétaire d'État et un ministre délégué rarement sax la ñuy nekk ci conseil des ministres tant que euh, amul euh, lu exceptionnel loo xam ne soxla nañ ko sur un dossier important jour boobu ci conseil des ministres un secrétaire d'État est toujours rattaché à un ministère c'est d'une évidence donc c'est exactement la même chose ci wàllum nombre ministres yi Euh, euh, euh, ci wàllu nombre nombre de ministres yi c'est c'est bien tant que ni ñu ko restreindre nii mun nañu mun na constituer quelque chose de positif pour mën a de manière efficace il a pas de problème le nombre ça n'a pas véritablement une certaine importance boo leen gisee yenn dëkk européens yi wala les occidentaux en général du ñu bari ay ministères regardez le cas de l'Espagne l'Espagne fait pratiquement 45 à 45 46 millions d'habitants l'Espagne a la ñu am donc euh, euh, je crois que ni comme on est des pays à construire effectivement selon politique bi nga ñëwee par rapport à la rupture par rapport à certains changements que tu peux faire entre 30 à 40 ministres wala ba sax ce n'est pas véritablement ce qui important tey bu ñu defoon 10 ministères aussi euh, tant que gëm nañu ni 10 euh, ministères yooyu dinañu efficace pour liggéey liggéey bi avec comme ni ñu ko defee nii des secrétaires d'État yoo xam ne ñu ngi leen di accompagner ci liggéey bi donc forcément que de toute façon c'est un début et début boobu euh, ci la ñuy xaar euh, dégg mam euh, liggéey bi mën a mën a mën a mën a mën a mën a mën a ñëw ci espoiru espoiru sénégalais yi maanaam que la que ce soit par rapport à l'employabilité que ce soit par rapport ak au train de vie de l'État ak location yi et surtout par rapport à la justice la justice awa mm. où nous avons un monsieur justement un bañkat. oui quelqu'un un monsieur boo xam ne honnêtement il faut euh, lui reconnaître cela par rapport à sa trajectoire de vie professionnelle boo demee aussi ci ministère des forces armées ce général là je l'ai suivi et je ne voulais pas rentrer dans les détails mais on l'a on l'a tout suivi c'est un monsieur qui est euh, de de qui, qui est extrêmement intègre ku am intégrité la boo demee aussi ci euh, intérieur euh, le ministère de l'intérieur euh, euh, très très très honnêtement je crois que ça ça pourrait ça ça, pourrait être convenable pour pour li ñu gis ni maanaam ñu rafet ci njortu li am solo au jour d'aujourd'hui moo ñu fexe def suñu kamtalay kàttan képp ki nga xam ne sànq maa ngi dégg ñuy wax ni Euh, euh, le ministre des Télécoms que c'est un monsieur qui est extrêmement brillant hmm. certainement mais le jour où effectivement il y aura le bordel dans ce pays wala dafa am ñoo xam ne dañuy ñëw pour yàq ay mbir pour euh, déstabiliser les institutions ak yi demee noonu si ça serait nécessaire pour que ñoom ñu couper internet bi pour la sécurité du pays bu boobaa ngeen di xam ni non mais euh, Aliou Sow Aliou <laughs> quand même non non quand bu ma couper quoi su ma paree parce que moi je dis ce que laisse-le terminer après euh, tu apportes la réplique s'il le faut Aliou termine s'il te plaît. mais il faut pas me couper ah bu ma coupé tey de. li nga wax nii moom la moom la Bocar Thiam doon expliquer ah non bu ma coupé dama ne dama ne laa wax le monsieur là le nouveau monsieur ministre là Aliou Sall la Aliou nu mu tudd Aliou Sall su fii ay nit dañoo xam ne dañu jóg naan dañuy bëgg a déstabiliser réew bëgg def yenn affaires yi si c'est nécessaire par rapport à sa propre responsabilité dina couper internet bi d'accord parce que tout simplement le mhm. pays un moment donné mhm. ñi nga xam ne ñoom ñoo koy jiite ñoom ñoo xam nan la war a sécuriser réew mi donc mën na nekk ce n'est pas une question de liberté la am na loo wax sànq ci suuf bi muy wax liberté waxoo ko sànq ci suuf. anarchie ne veut pas dire anarchie. donc forcément c'est pas parce que liberté liberté liberté dafa am ay il faut que ñu jàngal aussi suñu doomu réew yi lan mooy liberté quelles sont nos limites ak fan la ñu war est-ce qu'on a le droit d'insulter nos institutions est-ce qu'on a le droit d'insulter Bassirou Diomaye Faye je serai totalement en porte-à-faux avec euh, ce genre de comportement là parce que c'est yow niveau boobu nga toll ci sama xalaat. non quand même mënoo défendre am na des choses qui sont liées à la sécurité du pays. d'accord le jour où ce ministre là qui vient d'arriver que je ne connais pas xaw ma dafa xees wala dafa ñuul. moi je suis profondément républicain. jour boobu mu war a décider quelque chose parce que moom loolu la gis avec son patron de président de la République et de ministre et de premier ministre bu boobaa il n'y aura aucune raison pour mu bañ ko décider parce que ñoom la ñu jox nguur gi ñoom ñoo war a évaluer la sécurité du pays par rapport à certaines décisions. par rapport à la ñun xamuñu ci dara Aliou liberté nag il faut qu'on l'arrête liberté liberté am na ay limites dans une liberté. d'accord Aliou on ne peut de faire euh, parler de l'intérêt général euh, ministère de tutelle ministère de la communication tey jii euh, suscité na déjà par rapport ak internet mais par rapport également digitalisation.